mu ne booba nag àgg na ci sab gi xalima sëriñ bi di sab mel na li bëgg a bënn sama nopp nga xam ne daal sëriñ bi bu masaa di bind ci ci ci ji xalima gi def daal daawis na nekk fu sore sore sore di ko dégg nga xam ne loolu moom ku ne xam na ne rek lii moom am na lu ci làmb nee na yaari yoon la wane bi mu agsee daf ko ni yaa abdallahi mu ne ko naam mu ne ko kun abdallahi nee na mu ne ko kuntuhu sëñ bi ne ko wa fi kuntuhul xulfun kama nee na bi ci desit bi mu agsee daf ko ne yaa abdullahi mu ne ko naam mu ne ko qiyaamu leyli da'bu saalixiin nee na mu ne ko maa lii wala qiyaamu leyli naar bu taxit la woon nag boo xam ne moom wan ko ne ko daal loolu duma ci fekk man fanaanee julli guddi duma ci fekk naar boobu sëriñ bi mas na ko booleeg sëñ man dum ni jox ko ne ko na nga ko ganale te lépp loo xam ne bu ma la demee ci woon da nga ma ko defal na ko ko defal ba ñu demee si mën bu ne ko kon nag lépp mu ngi ci yow lu ne daal noo ko waxee rek danaa ko ne demee naar bi ne ko kon nag li jiitu ci ci liñ may defal mooy suñ nit bu ma dalal per yi moom na ko dal di baddi mu dem dal di dindi per yi ba mu defub yéen mu ne ko lal yëpp génne leen te lal fi ay ay ay ay ñu daal def noonu génne lal yi jënd lu ay mbagg yooyu leen lal si def ci lat kolom yi ci ngeganaay lu ko naar bi wax rek mu mu defal ko lakke xar togg baxal war ga yi nag moom ak góor la ko defal rek ci néeg bi ak sukkar si moom itam mu nekk fa ba fa bëgg a nekk mu delluwaat sëriñ Soñ bu nekk li nekk rek wax ne ci gànnaar dafa am bis ñu nekk ci foofu sëriñ bi ne nga ne kër gi sàkket yi yër daal mënu fi am noonu ñu ko waxewoon bu jëkk nee na ñu jekk ba ñu seen benn naar daa tëj daa baddi daa jéggi daal ko rek ci biir kër gi di ca pax ca paxee ci ballam ba dugg si ci biir naar bi gën a roo sële dalli ci biir kër gi dalli jàpp dóoru dóoru dóor ba mu waxoon nag sëriñ bi ne bërite xam ne génn fekk ko mu taxaw sëriñ bi ne ana ki ko dóor kenn ñëwatul ne mën a mu wax wax kenn ñëwul mën a mu ne leen ki ko dóor de bu ñëwul balu ko ak dugal ko ba mu bal ko man lii duma ko mën a tee dem sawara bi mu ko defee nag ki ko dóoroon daldi jàq daldi jëm ne ko mu wax dëgg yàlla day mbàkke mu ne ko li ma la wax rek da dawal di dem tuubal ko waa ji daal dem tuubal ko fekk sëriñ bi wax na leen ne ndax mu ngi bokk ci ñi nga xam ne ku yëkkati seen si diitu jëpp kenn mënu laa tee dem safara ndax ñooñu ñu wax ay eh, al abdal al abdal sëriñ bi wax leen ne kooku ci la bokk bi nga xam ne ne taalibe bi dikk na nag di sukk di tàllal loxoom ak tuub di wax naar bi ne sëriñ bi kii li muy def nii sëñ bi ne ko dalay jéggalu de dóor yim la dóoroon naar bi ne ko ah kooku du dara man rus naa yowmal qiyaamati kenn ku bokk ci ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di tabbi sawara ngir ngir man loolu jomb naa ko sëñ bi ne ko yowaa taalibi bi kon nag xam nga ni lii ma la doon wax a ngi nii ku mel nii dara jarul di tàngalu xolam li ci nekk nag mooy li ma leen di digal moo di képp koo xamante ni diine yàlla mayu la ngay xam ku bokk ci ñii li ngay def mooy foo toll na nga lamboo ay teggin teggin moom boo ko defee da nga la a mucc ci lu bari nett yi na sayit keroog xisatu yi nga xam ne ñu gënoon di woy sëriñ bi ci gën a ci la bokk Abdoulaye Sall moomu suñ sababa mooy jamono yi ñu jébbalu ci sëriñ bi boobu bëreegul naar yi doon murit yi ñu jëkk jébbalu ci sëriñ bi ca gànnaar la yàlla dogal mu taw tawat bi metti biñ dikkee nag yëgal si ko sëriñ bi ne ko sa taalibe bi day moom tawat bi metti na lool ba daal daanaka amatuñ ci yaakaar sëriñ bi daal di bind benn téere lam ko wax ne buñ demee nañ ko ko takkal ba ñu demee takkal ko ko yàlla dogal mu daal di wéru ci lu gaaw naar yi nag daldi ni da takki téere bi nañ xotti ko ne dañuy seet ba xam bismillah illa xam bi bi bi daal bi bi sëriñ bi jëfandikoo bu mu doon yi ñu ko tijjee ñu fekk sëriñ bi bind ci من خديم رسول الله إلى مرض عبد الله السالم المخرج عنه loolu mooy man xaadim rasul maa bind leetar bii wax ci abdullahi salim dalal di génn ci Abdoulaye Salim Diaw loolu rek la ci bind nga xam ne lii daal moom kenn xamul lu mu doon min xadimi rasulillah ila maradi abdullahi salim an axruj anhu sëriñ bi nettaliwaat it ne loolu sëriñ bi Lamine Gaye mas na sëriñ bi mas na koy bindloo wànne ne bu nettee nettee dal ko te sëriñ bi yàkkamte ni ngi koy bindloo lool Somewhere. Saka agugud bayadu mawala kumina umuna kullu. Musumun bin ni agugul barhe. Munuka mahanga cire mahanga cire wai gis musumun bin ni nalli. Dara la munu fini. Munuka mula cidal. Munuka wannan gidi mun monal ni rek. Munuka wa tekki sa loxo te wax ko ne ko yow wanne ni bayil bëti taalibe jàmbur ngir lamin bi wax ko mu neeti ko ne ko wanne ni bayil ba ci taalibe jàmbur mo wax ko mo ne ko wax ko ne ko wan ni bayil ba ci taalibe jàmbur mo wax ko mo ne ko ak sa defal dawal bi gaaw bind ni ma tiir nako ba mo àggee rek la tabbo wan ni to sëriñ dañu nekk ci lati ne soxna xarit Penda wax na ko ne ko ci njaareem bi nga xamee ni serigne bi jotta bi gi ëpp na ba ëpp ba ëpp ba te kenn mënatu la ag ci mom te ñu am seeni soxla di ko ko war a wax ñoom waa kër gi nee dafa mujj ne leen ñan ñi ngeen ñi ngeen leen liggéey yi ma fi deflu muy togg yi ku ci amati sa soxla rek ndab yi ñëw bu ngeen nekkatee ba def ko ci ndab yi rek ku ci ne lii bool yi soxla am mu di ko wax ndab yi danañu ma ko wax salaaw sëñ sooy bu nee na soxna xarit mas na koo jox boolu barkeelu boo xam ne nee na ko sukkeer bii tey yónni naa ko ci sëñ bi ba tey loolu kenn xamul lu mu sama xarita ndox mi it lëkki naa lu amante loo xam ne sëriñ soxna bi nee na bu mu ci bàyyi ko te sëriñ Abdou Lahad ne ko seetal fu ñu ko war a denc mu woo sëriñ Abibu moom sëriñ soxna bu ñu ànd dem ci armeel yi Touba di seet fu ñu denc soxna si dem ci mbokkam yi ñu koy xeetaleel daal ñooñu ñuy seet di seet di seet ba yàgg moom sëriñ soxna bu mu gis benn euh, armeel ñu bind ci soxna Anta Bale nee na fi kanamam nag mu gis fi ci wetam daal mu gis fi fu yaatu koo xam ne dafa mel ni béréb xaj na fa nee na mu woo sëriñ abi bu ko tee ngaa seet fii ndax dana mën na sëriñ abi bu ne ko waaw fii de fii de mën na ni béréb xaj na fi daal di xool euh, armeel bi ñu bind ci pour soxna Anta Bale nee na sëriñ abi bu moos dafa dafa tudd yàlla tudd yàlla goo xam ne dafa tiit sax moom sëriñ bi mu ne ko mbaa li jàmm la mu ne ko dama dama yéem sëñ Tuubaa rek ndax soxna Anta Balla nii ba mu nekkee njaareem mook soxna xaritan la bi ñu nekkee fa sëriñ ba dañoo bokkoon benn baraat ñoom ñaar ñu bokk benn néeg bu bu ñu ne yàlla dogal am lu dox seen diggante ba ak jaamaar loo am ja di leen sëriñ bi wooye nag di leen wadd ne leen ku ne war a dugg ba mu def yéen yéen jubóo ngeen war a def ndax yéen seen ñaari kër yi àjjana ya ñoo sësaloo loolu nag bi mu gisee suñ ñaari armeel yi naba sësaloon yi loolu rek te moom suñu abi bu mu diggoon wax jooju addinaam jëpp tukki sëriñ bi nettali na keroog it xistatu Abdou Salam Kane chef de canton yu mag yi ci la bokkoon Abdou Salam Kane moomu dafa amoon lu ko daloon taw yoo xam ne dafa yàgg ci moom lool fu ne yóbbu na ko fa faju dem na ci sax ba tugal ndax boobu tubaab yi dañoo fonkoon chef de canton yu mag yooyu yóbbu nañ ko ba France doom ko fa faj waaye mënuñu ci dara yàlla dogal mu tëdd guddi gént gis baayam mu ne ko yow day sa tawat jooju la dal kenn képp ko mën a faj ci àddina muy Sëriñ Tuubaa boo ko siitiwut doo wér moom nag mën na laa faj waaye nag fekk booba chef de canton yi eh, sëriñ bi li ñu jubóowul ak tubaab yi tax na ñoom ñoom ñëpp kenn koo ci xam ne ñeme nga tubaab bi dégg ne seeti nga sëñ bi njaareem amul mu jaaxle lool yàlla dogal am woote bu ñuy woote ndar nga xam ne ñoom chef de canton yu mag yooyu ñoo ko war a ñu di ko wax conseil colonial ñu war caa teew bañ ca wootee ba mu dem mu ne daal damay jàpp ci yàlla tàggu gouverneur rekk tey jaari ci sëñ bi yàlla dogal mu wax ko gouverneur gouverneur ni ko waaw demal mën nga ko fekk di yëlli Manuel Fall ñi nga xam ne boobu ñu ngi jaaroon te bokk ci chef yooyu moom la wax dikkoon na ca daje boobu ma wax ko ne ko kon nag boo demee jiituma njaaram na nga ma yëglul sëriñ bi dégg naa ko naqare gis la nag waaye na nga ko ko yëgal su ma dikkee fa laay jaar noonu la mu ko defee bi yéen li ñuy wax ko sëriñ bi sëriñ ne ko buy ñëw rek buy dikk rek na ngeen daal di andi ñëw bi nga xamee ne Abdou Salaam kan dikk na jaari fa yëlli mu ngi agsi ci mu ngi duggee ndar saxaar saxaar gi mu dugg bi ñëw ba ca falakaseeg saxaar gi jóge Ndakaaru tey jëm Kawlax mu wàcc goog ndar bi dugg ci googu ñëw njaareem ak si fa ñetti waxtu ci ci waxtu yi jëkkoon a xew booba nga xam ne booba waxtu yi nga xam ne moom la mooy waxtu julli yi booba moom moo doon waxtu rajo yi itam ak post nga xam ne daal doo ne ñetti waxtu yi booba mooy ñeenti waxtu léegi ñu gaar kër yéen li toog fa ba julli fa takkusaan ñu àndi fa ñëw ci sëriñ bi bi ñu dikkee yàlla dogal ma koy ñëw rek fekk buntu ubbiku boo xam ne dañoo seen ñuy dugg fa génn ñu daal di fay jaar ci far àgg ci sëriñ bi àgg bu jàpp ni daal tubaarkàlla ñu ñàkk see itam ba nuyoo yelli na ko gan gi ma la doon wax a ngi nii gan gi ma la doon wax a ngi nii naka ñu toog sëriñ bi ne ko yóbbu salaam daataa wax dara rek sëriñ bi ne ko yóbbu si yóbbante bay jiitu na la yóbbante bàyyi jiitu na la fi daal di ci dëkk ba boo dee nga jëndal ma fa la toll booba ay satala ngi fi yu ne dem ci kër gi perkaal bi piisi perkaal yi lu ne ngi fi waaye daal loolu la santaane joxe xaalis ne nañu dem jënd ci ab xasab ci perkaal ak akuk satala daal di jënd perkaal bi ni mu ko waxee woon jënd satala dikk bi mu dikkee mu daal di tibb suuf ñett suuf def ci karxal li ñëpp def ci ba na mu bëgg mu toll ni mu toll ni mu daal di koy laxas daal di koy ñoox ci biir satala bi ut satala bi ne ko yóbbul boo demee ba àgg fa nga jëm nga def ko ci am ndox sangoo ko bisub àllarba loolu ngay tawat ci sa bopp da nga moom te fekk moom waxu ko ne ko tawat waxu ko lenn waaye ci njëlbeen nga noonu mu ko wax rek su yóbbante baay jiitu na la bi nga xam na mu dal di dem fanaan asamaan set mu dal di xëyaat saxaar googu demaat ba keet te sefaat day jóge mu dal di ciy dugg euh, wuti ñibbi bi mu demee nag ba ci diggante kees ak Ndar fekk na yor na journalu tubaab mu yor ko di jàng ba yàgg satali bi mu teg ci kanamam mu mu gisaat ko fàttali ko ñaan gi it di xalaat waaye mu fàtte bisub àllarba bi ko suñ bi waxoon ne ko ci nga ci nga koy sangoo bi ñuy xalaat loolu fekk saxaar gaa ngi dow xel wu gën metti nee na am lu tolloog moom ci palanteer bi mel ni lu fëgg ne ko yow sëriñ bi àllarba la la waxoon ne la bisu ba àllarba ngay sangoo sa ñaan gi nee foofu nag mu mu tiit lool nag di di loxo dal di sornaal bi dal di fabaat catalogue yi téye nga baat ko bu baax a baax a baax wax na ni Abdou Salaam kan moomu am ay jamono sëriñ bi yebal ay taalibe ñu dem foofu ci Fuuta di fa jënd basang yi lant yu naar yi nga xam ne ay day def ay bant ba noppi ñu di ko ràbbee dara sëriñ bi fonkoon na ko lool di ko jëndlu mu gis ne taalibe yi jënd basang yi mu ne leen fu ngeen bàyyi ko ñu ne ko njaareem ñu ko ci fan mu na leen sëriñ bi moonu yónni di ñu jëndloo basang yi Abdou Salaam jënd ci ay basang yu bari jox leen ne leen su ngeen demee joxal leen ma ko te siyaaral ma ko te wax ko ne ko it eh, bëgg naa faa ñëw balaa yàgg bi ñu dikkee ñu nettali ko sëriñ bi sëriñ bi ne loolu baax na ñu yabalati leen ba seen dem jotee ñu wuteeti basang yi moo wax nag ka xam ne ñoo andi woon yóbbante bu Abdou Salaam kan ba ne leen su ngeen demee nag na ngeen ko wax ne ko su fekkee ne wét gi nga xam ne gouverneur bi ñuy wax Merlin woon na ko sëriñ bi Ndakaaru wax nañu sëriñ Mbacke Jaxate nee na ko euh, keroog bi sëriñ dem maam Cheikh Anta moo liyee saxaar ga saxaar ga fay na ci junni ak bul fàtte abonné bul fàtte abonné bul fàtte abonné bul